Jaraaf euh, Adama Mbengue alors li ñuy lay euh, jëkk a laaj rek mooy si situation bi nga xamante ni ci la ñu nekk situation boo xam ne boo génnee sax boo demee kër jàmm nuyoo kenn du la xàmmee ndax masque yi ñuy takk suñuy kanam daa mel ni kii nit ñi léegi seen doxalin yëpp soppeeku na rawatina tamit nit ñi jaaxle ci feebar bi nga xam ne yàgg na fi mi ngi fiy def ñaari at ci at mi ci àdduna bi yëpp rawatina Sénégal jamono ji mi ngi def ay ravage tey feebar boobu noonu naka nga ci yittewoo yow. waaw gannaaw ba ñu santaatee yàlla bu baax a baax mm. feebar bi doon benn mbir moo xamante ni mm. lu ñëw ci àddu àdduna bi la lu ñu xaarul woon la ñun Sénégal rawatina ak lu mm. ñu xaarul woon li magu lébu yu doon wax rek séentu weer jarul buuxante fépp foo taxaw seen ka ñu ko daan dégg Chine muy raam di raam ba ak suñu dëkk man sama ñàngat lu ko gën a lawal mooy politique bi parce que homme yi ñenn ñi ñoo ci wax askan wi loo xamante ne amul ñenn ñi ñoo ci wax askan wi loo xamante ne am na mais ba mu demee ba toll fii mu toll askan bi yëpp xippiwaat nañ seen bët jëlal seen bopp seen responsabilité parce que man mii di wax ak yow démb laa dugg gëltàppe hôpital bu fa ne Fass hôpital bu fa nekk Colobane hôpital bu fa nekk xool nit ñi ba hôpital Fann mu wóor na ma ni feebar bi am na ma jóg ak sama njaboot ak njabootu lébu ne leen jóg leen ñu ñàkku ji hmm. si laa ko def démb hmm. am na ay chaînes yu ma jël ba ma koy def loolu daal feebar bi xanaa ñaan yàlla mu jóge fi te nit ñi di wax nit ñi dëgg daal kon yow sa bopp ñakku nga ak njaboot gi ñàkku naa ak njaboot gi kon wóolu nga ñàkku bi waaw ñàkku gi ñàkku naa ko hmm. te du gor lu doy xalam rek lay def mm-hmm. te doy na ma mm-hmm. am naa yaakaar ni moom moo fi matuwaay bu fi sës mm-hmm. te lu fi sës moom moo fi sës moom la ñuy defi looloo tax ma defi waaye jaraaf ci feebar bi euh, yéen yàlla am na loo xam ne dénk na leen ko euh, ci ci wàllu xam-xam ngeen yi gëstu ci lu sori di xam lu bëri uteeg man mii nga xamante ni euh, xaw ma dara feebar bi nit ñi ñu ngi naan mbas la lu yàlla wàcc la nattu la ñi ñu ngi naan dañu ko créer yow sa bopp nan nga ko jàngatee jaraaf. ah man sama xam-xam bu gàtt. Mhm. bañ ko xoolee ci baatin xool ko ci jaayir. Mhm. man ci li ma ñàngat. Mhm. mooy feebar bi rax na. rax doon tam mbas la luñ ko doon wax. ñaan nañu yàlla nuñ ko mënee def nañ ci maam yi nuñ ko mënee. ba tey mu des fi. te lenn rek moo ci jaaxal saa yu ñu bëggee vague ñëw rek day ñëw. moo tax daal sama xel mu gàtt. mooy rax na. rax googu nag moo tax ñu war a dem ñàqu ji parce que ñoom ñiy créer feebar bi indi ko fi ñoom ñoo xëyaat créer seen i vaccin nañ nañ leen ñàqu ji kon dañu war a ñàqu ji parce que ñoom ñu bëgg nañu mu jeex waaye vaccin bi de dañ naan tamit wóorul ah man def naa li doy sama xel <laughs> kon boo mu doon digal di ma digal ne ma dem ñàkku képp bépp sénégalais bu may dugal digal mm-hmm. parce que suñu nawle lébu mm-hmm. la ñu dénk ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr mm-hmm. te am naa yaakaar ni yabul lébu gi yab gu day ni mm-hmm. dugal leen ci ay vaccin yu leen di rey ëllëg moom mu def fi ak suñuy sët kon moom dootul dund mm-hmm. loolu moom lu ñu wóor la parce que mëne nañu ci baatin mëne nañ ci jaayir mm-hmm. suñu rayee suñu njaboot nañ ko faagaagal bu ñu naxee moom dina ko gis amul ma dem tëj ak ak ñu ñu mu àndal président ak ñëpp ah nu mu mënti demee moo tax daal moom ba mu joxee kàddoom ma dégg ko ak doylu gi ma ko doylu ak lii ma jot a xam ci moom ci yoof moo tax ma jóg dem ñàkku ci hmm.